salaamaaleykum Bernard. maaleykum salaam ñëw naa pour sama ñaareelu bis bi. waaw yegsil waaw euh, yàlla def na démb nga ñëwoon. Mhm. Euh, ñëw nga tey. Mhm. Euh, tey la mooy sa dernier jour bi maanaam ñaari fan nga war a ñëw démb ñëwoon nga tey ñëw nga. Mhm. léegi ñaareelu fan bi fii ngay taxaw. ci wet gii laay taxaw tey. waaw da ngay taxaw. ma taxaw. waaw léegi supposons léegi ci biir lii ñuy def nii. léegi deux deuxième jour bi tey la. léegi. mesure ba nga jëloon mi ngi nii. Mhm. premier jour première mesure bi moo ci gën a am solo même boo ñëwee fàtte nga mesure ba nga jëloon itam boo jëlaatee beneen mesure bi. premier jour ba euh, rek ay compte waaw premier jour bi rek ay compte. léegi troisième jour bi fii nga koy teg ci suuf. ci ci suuf. waaw. Mhm. léegi ci biir loolu noonu su ma defee brousse ba su ma defee nii maanaam supposons comme ni ma defoon rek. ma mhm. brousse ko ñeenti yoon. léegi ma moo def li may def ba pare léegi nga teg ko ci suuf. léegi nga jël naan ñeenti yoon ba léegi ñeenti yoon waaw ba léegi mhm. kon naa ne ñeenti yoon yi léegi nga teg léegi yow nga ñëw da nga sikkat bii paa nii laay def waaw nga ñëw changé waat place incha allah waaw daal di tourné waaw léegi ñeenteelu ñeenteelu côté bi mu ngi nii première jour nii la woon deuxième bi fii la mhm. deuxième jour bi troisième fii la quatrième fee la jël naa mesure bi tegalaat la ko ci kaw. ci kaw léegi ci kaw la. gauche droite ci suuf ak ci kaw. Hmm. ñu def lañ ci def ba pare ñu moccal la ko yaa ngi dégg. nga tegaat waaw nga teg ci suuf. naanaat. nga naan. ñeent ba léegi ñeenti yoon ba léegi. Hmm. léegi si biir lool boo naanee ñeenti yoon yi da koy sékkat ñëw. moo kon euh, chers amis internautes mu nekkoon suñu premier numéro émission découverte fii si jasab dañuy bàyyi nag Bernard mu ñëw joxe contact yi di ngeen ko gis également ci suufu écran bi mooy numéro yi muy waaj a Bernard ku la bëggoon a contacter mhm. naka lay jaare waaw euh, ku ma bëggoon contacter boo dégloo numéro yi ñuy joxe boo fa jaaree dig ñu mën a jot mhm. waaye fii dëkk bi am na foo xam ne boo fa duggee wala sinon nga wàcc nga laajte. mën leen mën lañ laa détourné. Hmm. moo tax moo waral ñu war a joxe numéro yi. Hmm. ku ñëw ba ci dëkk bi ñëw biir kër maire bi nga xam ne mooy faj laajte woo kër maire bi woote woo buñ la détourné itam. yaa sànni sa xaalis ci àll bi yaa sànni sa xaalis ci àll ba. Hmm. parce que loolu am na fi amat fi. léegi ci biir loolu noonu numéro yi euh, sama numéro téléphone man 77 la. 546 21 17. 77 546 21 17. Wow Moi numéro bi défilé ci souf écran bi. ni waaw waaw numéro yi défilé ni ci écran Jésus Fay euh, di seut Bernard Jésus xam nga ku wax sexe xam ni sujet tabou la fi Sénégal wa mag ñi buñu ñëwé yeen di ndaw naka euh, euh, cher ami internautes mm-hmm effectivement comme niñ ko waxé souvent euh, yenn say ñu am char euh, yu mel noonu da ngay gis ku ñew ba ci buntu kër gi sax day am kersa duggu euh, parce que kër gi xalé yi ci nekk truc comme ça ñu am kersa duggu ba da leen di jaral ñu tourner waat hmm. wala ñu toogaat fofu lu yagg nit gis leen laaj leen ah lan mo leen indi ñu doga duggu hmm. car machallah bon ñun yor nañ yar bo xamanteni ni képp ku fi ñew da fay am façon bu ñuy wax ak yow ka mu nekk mag ka mu nekk xalé day am façon boo xamante ne dañ koy wax ak yow mais boo bëggulee àgg sax ci effectivement li la indi ñun mën nañ cee wax ak yow ba ñu déggoo ci kàddu te itam euh, benn jafe-jafe du ci am benn kerse du ci am ndax lépp dañ koy def ci euh, sutura ak teraanga. Hmm. ci sutura ak teraanga lañ koy def car macha allah. comme Bernard sa maam ni ko ay maamam préparé ak i waajuram moom it noonu lañ lay préparé ci mbir yi dafa mel ni. waaw na ci loo ciy làq fi nga toog nii. xam naa ñàkkul li ci kanam rawul li bët. Hmm. waaye ginnaaw a moom mooy kilifa bi rek. Hmm. dañuy topp si ginnaawam ba ci kanam daal. ngokk hmm. ñu tourné ci suñu xarit Philippe Faye euh, Philippe également di doom ci euh, le doyen Bernard Faye Philippe ngay gunge sa papa euh, muy loo xam ne dañ ko doon seen famille di ko def fii ci jasab loo ci mën a teg yow. waaw salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi hmm. di nuyu ñëpp waaw liggéey bi de comme ni ko sama papa waxee mana, hmm. maanaam dafa nekk loo xamante ne ni liggéey bu yàgg la hmm. euh, yàlla def euh, ñu koy topp ñu koy topp ba tey fii tey nii suñu papa Bernard euh, maanaam jël liggéey bi mana am loo xamante ne mu ngi koy liggéey ak ñeneen ñoo xamante ni daal yàlla def na jàmm ñu ngi ciy gis seen i bopp ci biir loolu moom itam pour bañ maanaam liggéey bi bañ naxasaay maanaam jàppee na ko comme ni ko suñu maam yi jàppee woon. Hmm. ci biir loolu mu ngi yokk xam-xam daal euh, yaakaar naa ni daal sant yàlla daal ci bu fi nit ñëwee. Ah, kon tey ni yow ku ñëwoon mën nga koo liggéeyal bu bu Baye Bernard génnoon wala mu dem voyage. maanaam yaa yaa Jésus. nit ku ne maanaam sa wàll ci faj bi. Hmm. maanaam am na foo xamante ne nii. loolu la la Paa Bernard dénk daal voilà hmm. nit ku ne daal daa am lu ñu dénk ci faj bi daal. Hmm. jërëjëf. mu ngoog eh, di ko jaajëfal moom Philippe ak Jésus di jaajëfal également eh, suñu papa eh, Bernard di ko jaajëfal ci accueil bi ndax c'est pas évident xam nga nit soxorul ci xam-xamam ñoom dañ ko doon war ko perpétuer pour mu bañ a réer ci seen loxo puso bi Pénard looy tàggoo ak suñu mbokk yi ñuy seetaan. waaw euh, sa mbokk yi ñuy seetaan maa ngi leen di jëfal di leen gërëm di leen sant itam ci euh, merveille bi ngeen euh, ñëwee fii. Mm-hmm. ñaanal naa leen yàlla seen liggéey jëmale leen ci kanam lépp lu ngeen ci mbébét lu ne ci lu baax itam na leen yàlla koy na leen ko yàlla may. ce sont les merveilles de la culture serrère non. mu euh, site euh, Merveille TV euh, rendez-vous numéro 2 émission